برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان اعتذرهم بسباء الأحوال والأسرار وشق لهم بذكره بالعشي والإبكار وجمعهم في زمل الحبيب المختار وتعرف لهم فعرفوه فخرجوا من دائرة الجهل والإنكار واختارهم لقدمته ومحبته وزهبة أصفيائه الأبرار وجذبهم إلى حضرة قدسه فهموا في مطالعة الجلال ومعاينة الجمال فقابوا عنها بشهود الكمال القائل ففروا إلى الله إني لكم منه نظير مبين صلوات الله وسلامه على خير خلق الله سيدنا محمد مظهر ذات الله وعلى آله وأصحابه وأنزاره إلى الله خاصة الصديق الأكبر والفاروق وذي النورين وباب مدينة العلم القائل بعثت من غير القرون بني آدم قرنا فقرنا أتى كنت من القرن الذي كنت فيه وقال أيضا كنت أنا وعلي نورين بني يد الله تعالى ثم أورانا في ذلب آدم فلم يزل ينقلنا من ذلب إلى ذلب إلى عبد المطلب فخرجت في عبد الله وخرج في أبي طالب ثم اجتمع نورنا في الحسن وحسين فهما نوران من نور رب العالمين ورد الله عن سبته وأسراره ممد الأقطاب والأولياء والعارفين ومستند الأكابر والصلحاء والصديقين والبدلاء مولاي أحمد بن محمد التجاني القائل فإن العارفين رفع عن قلوبهم حجاب الكون فعاينوا حضرة القدسية معاينة لا عن قبر كقريق البحر لا يحتاج أن يخبروا أحد عنه ورد الله عن وارث سرهما الشيخ بجميع مراتبه ولذان وقته ونور سمانه ونسيج وحده الباب المفتوح لكل من يريد الولوج في حضرة القرسي مع نصر الله من قلقي أعني أبا إسحاق قرة الدهر ذاق الرجال بكؤوز العرفان ما هو إلا هو صاحب وقته وعلى يديه فايدة التجاني سيغ الإسلام على إبراهيم نيس بن على عبد الله التجاني بن سيد محمد بن مدمبا بن بكري بن سيد محمد بن سامبا بن ردا رضوان الله تعالى عليهم اجمعين القائل رقيت زر العرفان رقيت زر العرفان جبت المفاوسة إلى العادرة العليا وللفيد هائزا وقال أيضا وجلت في القيب لم أجد لذات عبدا سوايا وجلت في قيب القيب فشاهدت جلالا في جمال فإذا بحضرة قيب القيب تدعوني وتزمني يا أحمد تيجاني فتيقنت أن لا مراد للحق بعد ذري إلى أنا وصحبت عبد ذاتي ونذرته وازت ألفي ألف سنة فجعلني أبا البشر وممد جميع الكائنات وسر الموجودات وآدم الأرواح والأصباح وهملت الأمانة ونوديت يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض حق قدري ومقدار العظيم مبرومي نيجي سنتي الله بباخ نيجي جلي شي يونتم سانغ يونتي مو يونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم نيجي غرم وليوم سانغ ولي موي شيخ تجاني رضي الله عنه نيجي غرم خليفام سانغ خلفاوي موي مولانا شيخ ابراهيم نيس رضي الله عنه نيجي نيو ki nga xam ne si jotaay bi moo fi bàyyi mooy bàyyi maam ñu ngi lay nuyu bu baax di la ndokkeel di la teg sa siis bi la yàlla teg ñu ngi lay wàccee sa wàccuwaay ñu ngi lay jox sa xorma ñu ngi lay jox sa gëdd ñu ngi lay xool sa bëti maam parce que alquran moo ñu jàngal ne sët yi dañ leen di yéegal ci maqaama maam yi kon ñu ngi lay yéegal sa maqaama maam Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ñu ngi lay ndokkeel ñu lay wàccee sa wàccuwaay yaay taaru jotaay bi fii yaay mbootu jotaay bi yaay leer bi ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax di la jox gëdd bu baax xam nañ yaay kan ñu ngi lay xormal bu baax a baax ñu ngi xeras sax pour wax sa kanam waaye nag sa maam nun la daan def sa sëriñu maam nun la daan def sa sëriñu sëriñu maam nun la daan def mu yonente Yàlla Muhammad sa alayhi wa sallam toog naa saaba yi toog ñoom ñëpp nga xam ne lépp luñ nàmp ci alxuraan ci moom lañ ko topp nàmpee mu ne ibnu Mas'ud jugal nga jàngal ma alxuraan ibnu Mas'ud ne ko yonent bi du ma la jàngal alxuraan parce que alquran ci yow la ko yàlla mu nekk Ibnu Mas'ud waxal alquran kanaa xamoo ne dama bëgg a déggee ci beneen làmmeñ bu nekkul sama làmmeñ loolu nag jàngale la kii képp ku yare ci diine tey nag am na ñoo xam ne bu ñuy yaree ci diine danañ dem ba jomb sax di toog ci jotaay keneen di wax ngay déglu ana yonent yàlla ma kaa nekkul seen référence ana yonent yàlla ma kaa nekkul seen royuwaay ana yonent mooy professeur bu mag bi toog naa saaba yi toog mu ne ibnu mas'ud waxal alquran ibnu mas'ud ne ko yonent bi alquran si yow la ko yàlla wàcce yow yaa war a wax alquran ibnu mas'ud yonent bi ne ko ibnu mas'ud dama bëgg a déggee alquran si sa beneen làmmiñ bu nekkul sama làmmiñ Cheikh Tidiane ci tracé boobu la jaar parce que suñ sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima comme ñëwaguñ si nee na bokkoon na ci karaama Cheikh Tidiane min wa an kaana taabi'an nahja haadin laysa anhu yaqibu wa saraw waaye thème bi du Cheikh Tidiane kon liñ bëgg a wax rek mooy Cheikh Tidiane ci tracé boobu la jaar parce que bàyyi na ne Cheikh Tidiane yi musta teggi tànkam fu yonente Yàlla Muhammad tegoon tànkam seriñam muy euh, taalibi Cheikh Tidiane di sëriñ ci sëriñ bi di sëriñ sun ñun muy Maulana Cheikh Ibrahima ku ne xam ne ne yàgg naa toog taalibi yëpp toog muy jox discours ku ne wa ahara rawatina euh, sëñ euh, Baye kii Barham nga xam ne Baye wax na ne sa Pakistan biñ demee ma gis na ndaw yi ñoo gën a bëri dama ne ko Barham jugal wax ak ndaw yi parce que ndaw bu waxee ak ndaw mooy ëpp résultat parce que man su ma waxee dañuy wax ne mag laa su ma waxee dañuy wax ne sëriñ laa waaye Baye ne kenn ku nekk war góor góorlu ba ndaw yi mën a wax ak ndaw yi mécanicien yi mën a wax ak mécanicien yi tailleur yi mën a wax ak tailleur yi demet langage bu nekk métier bu nekk ku ci nekk war ngaa góorgóorlu ci yàlla ba nga xam ne say ñooñ boo waxee ñoom mu gën ëpp résultat kon ala kulli halin bàyyi ci loolu la nekkoon moom nag kon bu fekke tek na tànk fof la kharwa la kharwa arabiy dañu xone la kharwa fi fadlin yura fadl du yimi muk ci geneel lo xamne gis nañ ne ciosanu ngëneel li ngëneel kon ala kulli halin xam nañ ne kusi la jógee fa bàyyi waxoon ne qahatuluhu bi kusin wal hayy kulluhum ruquudun azimul muxsaraati sawaria te njëkk mu koy wax lu mbay wax lu bay waxoon nee na pakki يذكرني برق الوميد المقانية حقيقا وصل عن والنقى والعواليا قل يذكرني برق الوميد المقانية حقيقا وصل عن والنقى والعواليا قعدت له بكوسي والعي كلهم رقود أزيم المعصرات السوارية آه. كن على كل كم نيوغن شكوسي مجوغي كوسي نيو في دغار تتايجي tey في mu ngi war a jógee fii war a demaat xalima xaaliqii bi anna zabari maa fi hazzun min huzuus il bashar bàyyi ne yàlla mi ma bind xam na ne sama tukki mi bakkan amu ci cër dëgg-dëgg lii bu doon bakkan day wax ne man bàyyil ma yem Cees moo gën a jege waaye jéggi na Cees ngir soppi yi ko fii xaar mu xam ne soppi yi bëgg nañ bàyyi kem ni nga xam ne bàyyi bi mu demee Gàmbi nit ñi dara ko dana ko anna qawma suusu qad ahabu nabiyana fa hibbahu ahabu dégg nga mu nekk anna qawma suusu qad ahabu nabiyana mu ne fa xibbahu ahabbu daa mel ni soose yi bàyyi ne soose yi ñëw bëgg yonent ne sama firnde ne soose yi bëgg na yonent nee na man dañ maa bëgg te man ndawal yonentu laa kon du man lañ bëgg yonent lañ bëgg bëgg giñ bëgg yonent ci lañ ma bëggaale moom tamit mu ne ah kon soppe ak may xaar Dakar te du man lañ bëgg waaye bëgg giñ bëgg bàyyi si lañ ma bëggaale kon tag il faut ma yegg si soppe yi kon ñu ngi leen ndokkeel Baye Mamadou ñu ngi lay wàcc sa wàccuwaay ñu ngi bëgg ñu ngi nuyu Corna Kanté mi nga xam ne moo ji lii moo jëmbat lii moo yar ñi moo tàggat ñi ñu leen ndokkeel bu baax a baax dina wàcc si wàcc waay ñu ngi nayu papa yi Seydina Ousmane délégué quartier bi wax na ma léegi wax yi rëy ci yow bi mu jaaree ci yow yar bi nga ko yar kontaan gi nga kontaan ci moom ñu ngi koy ndokkeel bu baax ku set la ku sel la ku am tawfiix la mu ngi may wax Seydina Ousmane bi muy dugg ci faydu bi nga xam ne moo jëmbat lépp dëgg-dëgg tawfiix gi mu ci am moom amul ci benn sen te barina na ci parents yi ñoo xam ne seen doom bu ñu wuuteeg ñoom pas-pas rek Baye Mbaye Niass daana wax mu ne jamono dafa toll foo xam ne koo wuuteeg pas-pas rek mu def la noonu moom amul problème boobu kon dëgg-dëgg ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax kilifa nga si jotaay yi borom kanam yi taaru yi mag yi sell yi ñu ngi leen ndokkeel baax a baax maa ngi nga xam ne ñoom laa àndat nga xam ne kenn ku nekk ñoom jant la biddiw la weer la euh, kilifa la càmm mii tey darsu bu réy la bàyyi ta depuis sa ndar ñu xam ko ba léegi ci darsu darsu lañ ko xamoon mu nekk borom xam ko mag man téere bu ñuy wax ah, buxiyatul muslim dalal na ma ci benn darsu fekk booba buxiyatul muslim à 2000 2000 2000 2000 ca ndar buxiyatul muslim dalal na ma ci benn darsu kon kii dëgg-dëgg mënoon na wax ne benn darsu dalal ma benn darsu boobu xew ma ko dalal na ma ko fekk boobu moom mu ngi waaj laxas di ñibbi boo man maa ngi jàng bay def tafsir waaye fekk boobu maa ngi euh, buxiyatul muslim téere yeneen yi bëgg naa ci laal moo ma dalal tarjumaan ci après moom mu jugee fa ñibbi si dakaar parce que boobu si commerce bi la nekkoon ma door a continuer yeneen téere yi kon kilifa la chaque jour la nekk ci lay jàngale dar su la bàyyi tey pour ànd ak ñun gunge jotaay bi kon dëgg-dëgg ko buñ ko gërëmoon góorewul ñu ngi lay ndokkeel baax ñu la wàcc la ci a Sayd Fall Hikma borom xam-xam la ku xam histoire ku xam taarix tey histoire boo bëgg xam moo xam ci yonantu la si Cheikh Tidiane ci bàyyi loo mën a xam histoire bu la réer laaj ko Fall laaj ko Fall boo ko waxee ne baat nangam ba nga bàyyi tafsir lan la waxoon tafsir baay bi daf ko mokkal mokkal baat bu nekk nu ko bàyyi waxee fu bàyyi xeddamti o xam na ko foog waxoon baat bu nekk baat bi ba nga bàyyi tafsir nan la ci wax dala koy wax billahi la si laa ilaha illah wax ma pour jay ko kon borom xam-xam la bu mat ànd ak ñun ci juraay bi ñu ngi ko ndokkeel maa ngi ànd ak Seydi Moustapha Tage ah, jaam yàlla bu baax bu sell boobu sergent ah, sec ñu ngi koy ndokkeel bu baax ñu ngi ànd moom Dame Mesere ak imam ñu ngi leen nuyu baax a baax Seydina Ousmane ñu ngi leen nuyu Seydi Bitey ñu ngi nuyu kilifa yi nekk ci juraay bi yëpp ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel Thierno ah, Thierno carno sa ñoom nuuru nuuru kii yor leer gi Seydou nuuru jaam yàlla bu baax bi ñëw nañ sama kër ci jamono bi Taïba ba so ne dañ may dañ may wax ne pour ma waxtaan ci Taïba man leen pour ma waxtaan ci Taïba day teel ku bëgg a waxtaan ci tay ba danga waxtaan ci rajab boo waxtaanee ci rajab ba pare dooro waxtaan ci ba dooro waxtaan ci Baay ma ne loolu nag jotaay bi attunu ko dégg nga euh, mu àndoon ak Seydi Badara Hmm? noonu la mook Badara ñoo àndoon Cheikh Tidiane yi moom ku baax la Cheikh Tidiane depuis jotaay bi jàpp ko ba léegi mu ngi woo di ma nemmeeku di xool fuñ toll nan la ñuy def kon dëgg-dëgg ñi ngi ndokkeel ñëpp thème bi nag Cheikh Tidiane dama waxoon ne bésu bàyyi la bàyyi bés bi jël judd delsiaat nañ waxtaan ci bàyyi waaye boone ne nañ waxtaan ci baay li lay wër mooy bari xam nga boo ne moo nañ waxtaan ci nangam ci baay waaye boo ne moo nañ waxtaan ci baay du ma xam ndax damay waxtaan bàyyeek 1971 1961 si Égypte wala damay waxtaan Baye ak 1963 si si si wala damay waxtaan Baye ak 1945 46 sëg Nigéria wala damay waxtaan Baye ak 1936 sa ajam gu njëkk 37 36 37 sa aj gu njëkk ga wala damay waxtaan ci Baye ak 1921 22 ci ruul adab wala ci lan lay waxtaan. wala ba may waxtaan bàyyi mi nga xam ne moo waxoon ne yàqulu Ibrahima na judul haaji habdul ilahi badrinal wahaaji habdul ilahi moom نجل الحاجي عبد الإلهي بوب لاي وقتان ولا باي محمد المصري دون وخ نان عبد الإلهي حضرة الفؤادي وسمرة الإيجاد والإمداد أحبه حب الأنام للمطر فما لنا دون الفؤاد من مقر تي بان باي لاي وقتان بان كون بن ما واخا نان وقتان تي باي تا ما واخال تي نانغام باي يماي وور تي باي موي بري يماي وور تي باي دي بري li ma wër muy bëri xoolal sax xoolal rek xoolal xoolal xoolal xoolal yi ma wër bëri na bëri na xoba sikar si gars yi dañ sikar ba ma bëgg a wax si sikar parce que bakkaar yi am na bakkaar yoo xam ne astafirullah moo koy wàcc waaw am na bakkaar yoo xam ne astafirullah du ko wàcc am na bakkaar yoo xam ne laa ilaha illallah ji nga xam ne jaasi la te bàyyi ko yor kub ko gor say bakkaar wàcc bakkaar yooyu nga xam ne moom la bàyyi wax ne darabtu sayfa sikrika al azimi ala riqabi kulli zalimin mulimi ضربت kaka mo darabtu fi'la fa'il darabtu durna sayfa moy fa moy maf'ul ma darabtu sayfa dhikrika al-azim ala riqabi kulli zalimil mulimi wayla darabtu sayfa dhikrika al-azim ala riqabi kulli zalimil mulimi oh yimay xecc darabtu sayfa dhikrika al-azim ala riqabi kulli zalimil mulimi bayne darabtu duur naa duur naa duur naa sayfa sikrikal azimi sa jaasi tudd yàlla ci xam nga am na jaasi yi gaa yi miin am na beneen jaasi bu bokkut ak jaasi yooyu jaasi yooyu yaram yi lay nàccal génne deret yi waa am na jaasi yoo xam ne wujud lay ñàkkal nga xam ne Ibrahima Diouf loola ko waxoon jëndul fetal jëndul jaasi ba tey gubur gënul fa njural fanaawula ci dóor mooy Seydi Barhama ana waykat yi ngural fanaa u du sama u de ngur njurul fanaa u jëddul betal jëddul jëddul tey ku wur génnul jaasi ba tey ku poos njëwrul fanaaw la bi doon moom jëndul fetal jëndul fetal jëndul jaasi ba day umur jëndul poot juróom samaawu la fi dóor du samaawu de samaawu mooy ilaha illallahu la ilaha illallah waxuma bopp waxuma bopp waxuma bopp waxuma bopp waxuma bopp waxuma njural samaawu de njural fanaahu jëndul jëndul jëndul jaasi ba day umur jëndul poot juróom samaawu la fi dóor moom Seydi Barhama njural fanaahu fanaa u mooy jeex boo ñëwee ci baay te ñëw ci baay nga ñëw ci baay baay jox la yam lay jox nga sikar ko ba pii këf la bakkaar boobu nga xam ne moom la Seex Tijaan yi waxoon ida qulta maznabtu qaalat mujibatan wujuduka sanbun laa yoxas bi san ne ne nit ki bu waxee ne aw ma bakkaar pii yàlla bi day dóor naan ko sa am ki bakkaar la te amul bakkaar bu toll ni sa am ki ki fii jëlee am yi nga xam ne nit ñi dama wax ne li leen yir yàlla ñeent la sama suñu sa seen sama suñu sa seen sama yaa ngi fi suñu yéen a ngi fi sa mang fa seen ña nga fa jugee fii ngeen jugee fii mu jugee fi ñu jugee fii ngeen xegg ci yàlla kon njural fanaahu la fi bàyyi dóor kon ala kulli alin sikri yàlla sikru boobu laa wax nga xam ne moom la bàyyi wax ne darabtu zayfa zikrika alaliimi ala riqaabi kulli zalimin mulimi sikri boobu mu ngi may xëcc ne waxal ci man parce que sikir bi bàyyi indi ak sikir bi gaa yi sikar du benn sikir bi bàyyi indi dafa ànd ak xam sikir bi gaa yi tudd nag tudd la boo xam ne takkalum rek la bàyyi dafa dem aji mag ba mu demee ba arafa mu ne waqaftu yawma sulasa bi arafa askuru rabbi zikra abdin arafa mooy taxaw naa si bésu troisième bi bu dee nag arab ngay jël di compter bés boo jëmee yawmal ahad mooy benn bési bi mooy dimanche yawmal isnayni mais bésu ñaareel bi mooy lundi يوم السلسة إمي بسون تلبي موي تلاتة بفكر شيء بس يو إنجيلة أحد إثنين السلسة كون تخونا شيء بس تلاتة واي منو فكر بجيل أحد إثنين السلسة ب السلسة دونك تراسيم تخونا شيء بس تراسيم بي تخونا شيء بس تلاتة بي فو تخو باي من مانع عرفة أذكر ربي ذكر عبدنا عرفة مانع تودي الله تودي الله كوكام يالله tudd yàlla ku xam yàlla ak tudd yàlla ku xamul yàlla du benn bàyyi na man tudd yàlla bi muy tudd yàlla tudd yàlla ku xam yàlla moo tax bàyyi heure bi muy tudd yàlla heure boobu bu ko tuddee du ba dara dara la du ba xam nga tey bu ngeen ma waxee waxal ci bàyyi am na ku taxaw ci el yi am na ku fa taxaw naan ah ku ràcc jëmale sa kanam mu dëll am na koy wax am na koo xam ne mu wax ci xelam naan ay kum nekkee wax sa sëriñ am na koy wax lool. waaye bàyyi bu ràccee benn ràcc du desati li nga war na ràcc bàyyi da koy ràccaale day ràcc ràccam bi ràcc ca ràcc bi ràcc seen ràcc yi ràcc li ngeen war na ràcc. kanaa xamoo air bi bàyyi tudde yàlla laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah maa ngi bax damay bax maa ngi baax la wax bax taxawal taxawal taxawal bal ma waññi tàngaay bi parce que may bax bu ma dindee kubéer bi rek xam nga cin buy bax dindil kubéer bi ngir mu bañul tuuru instant yi kubéer bi laay naawal pour mu bañul tuuru ma tax man la uh maa ngi bax ba ma ne uh boobu génne na lu bëri laa ilaha illallah boobu laa wax ma ne bàyyi heure bi muy duur bu ko duuri du ba dara te bàyyi tudd yàlla ma ne tudd yàlla tudd yàlla tudd yàlla tudd yàlla tudd yàlla tudd yàlla tudd yàlla ma ne saahir bi yàlla ba mu ruux bind yaram ruu war a ci yaram yaram dafa lëndëm ruune du dugg ci yaram yàlla wax malaaka yi sikaral leen ruu ñi sikaral ko laa ilaaha benn air ruu dem ba jub yaram arrière ne dafa lëndëm yàlla ne sensé leen air ñi sensé air ñi sikaral laa ilaaha illaa huwa dem ba jub yaram arrière ne dafa lëndëm yàlla ne sensé leen air ñi sikar laa ilaaha illaa anta ruu ñëw ba jub yaram ne kon maa fi yaa ngi fi mu reculer yàlla ne sensé leen air ñu ne laa ilaa ilaa ana ruu nga xam ne ah ki ma jëm man a ñun ñaar dun ñaar benn lañ ruu ne caraax ci yaram moo tax ma ne foo dem da nga dégg ñu ne ana jàngkati nangam yi ana waykat yi waaye ana tuddkati yàlla yi kër baay kër baay ngay ñëw ñiy jël tudd yàlla di ko sensé heure bu mu leen neex ana ñi mën a tudd yàlla ana kan moo mën a tuddal yàlla ñeenti heure yi bokkut ci laa ilaa ila laa laa laa huwa laa laa ila anta laa laa ila ana benn air damal ci beneen air bu bokkute bi nga ko way nii. illallah ñaari air demal seen beneen ñetteel bu bokk na ñaar yi. ñetti air demal seen ñeenteel bu bokk na ñetti. cam. Çam! Allah! tudd yàlla rek waxtaan la dañ koy feresu xoolal ma ne air bi bàyyi duur bu ne laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah taxawal taxawal déglu ma déglu ma xool ma xool ma xulli leen seen bëri xool ma ne leen mu kujj xoolal laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah da jël penku jël sow jël ndeyjoor jël càmmooñ jël kaw jël suuf lu fi des laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah yaa ma gën a neex baat way ko laa ilaaha illallah baax na baax na dëgg la waay baat boobu waruwaay la laa ci Alxuraan fa'lam annahu laa ilaaha illallaah bàyyi bu téye laa ilaaha dala koy jox nga wax ko mu dagg alif bu daggee alif ci allah lu des lillaahi ma fi samaawaati ma fi l ard dagg laam منس له ما في السماوات وما في الأرض باي دغات لام منس هو الأول والآخر والظاهر والباطن جاي ورش دقو حضرة القدس تي بيغا خامني اند ما محمد سواها لا سواها يا من يروم لخاها حضرة القدس عين وجه إلهي فمدام كهتن يرق علىها برست منها أولا حضرة المختار حينا لهائها فيه laa ilaaha illallaah boobu laa wax ci man ñëpp min xaafin ila xaaf fi jant bi fenke ba fi jant bi sooye xoloma yu sob yi yu sob yi nee na boo demee fi penku ba fa penku jeex fa penku yem ñu ne benn dojo fa nekk xaaf la tudd fa soowu yem benn dojo fa nekk xaaf la tudd xaw ku ko gis si ñoom nag Cheikh Tidiane ponkal moom toxorom ba man gi nga xam ne ñëwaguñ ci moom nga xam ne bu feeñee ci alam bi alam bi day far nga xamne Baye Niass na bu Cheikh Tidiane waxtoon du feextu daf atan du meuna nek sama serign ki feñ fi nan du feextu daf atan min adatil xay bi fasaara awli akhiri wa akhiri awli wa juz'i kulli wa kulli jus i fa sirtu ana hu wa la min aizu ana fa in saaka law sa'altani ساك لو mas'alatin la ajabtuka bi لأجبتك بجواب واحد kal musbah لو زعلت مني جميع المصابي ما نقص سالك من دو إسين ولي الله العمد نخمني سيخ تجان من بين النفحات تي النفحات الإلهي مو نيو كوس مشي حضرة القدس ما جيخ سما لن دي سما لب سما لب دي سما لن سما قاج دي سما لب سما لب دي سما قاج ما يمجي دي موم ويمن وايدو من موم لا بوما لاجون جنة لاج ما تنتو لاج بين تنتو تلولي نين جسم بني حق شي الله خم نانكو بوني ازمان ني داق ساخال لاني ورا ساخال بوني سوف ني داق ساخال لاني ورا ساخال بوني جاو ني داق ساخال لاني ورا ساخال بوني بيديو ني داق داخال لاني ورا ساخال بوني وير ني داق ساخال لاني ورا ساخال بوني جند ني داق ساخال لاني ورا ساخال لو اندي ني داق ساخال لا ام nga xamne bayne fe yaangi feñ do fay gis fadda an ka naqtal qayn fal qayn zahirun fa naqtuka waaye taxu ñoo jóg sikar dañ koy bu ñu toppee sikar ci la ñuy fanaan ci sikar sikar ma ne lii wane ne bàyyee ci man laajal ñuy wax ci laa laay illallaah lan moo tax laay ilaaha illallaah nekk fukki xaraf ñaar sang bàyyi ne laa ilaaha illallaah fukki xaraf ak ñaar yooyu da koy téye jël baat bi ak xaraf yi récupéré baat bi dóor ko guddi gi guddi gi ñaari heure fukki éer ak ñaar nga jël xarafi baat bi dóor ko éeri guddi gi nga récupéré baat bi ci guddi gi récupéré xarafi gaar bi ci éeri guddi gi jël baat bi dóor ko bëccëg bi jël xarafi baat bi dóor ko éeri bëccëg bi bëccëg bi jeex guddi gi jeex nga récupéré baat bi ci bëccëg bi récupéré arafi baat bi ci éeri bëccëg bi jël baat bi dóor ko at mi at mi jeex nga jël arafi baat bi dóor ko weeri at mi weeri jeex nga récupéré baat bi ci at mi récupéré arafi baat bi ci weeri at mi jël baat bi dóor ko nit nga jël harafi bat bi dur ko bën bën nit ñaari ñaar la 2 4 6 ak jumbax ñaar la huit ñaari wen muy 10 ak ñaari ci suuf muy 12 té loolu moy sahir bi laa ilaaha illallaah baye ci man ñep mo la bayne la ha xisrun wa lubbun wa ilaha dafa am xottu am kemb am diwlin kemb gerte moom ñëpp ko xam gerte boo téyee gerte xumbur xumbur xumbur nag ci Dakar ñu koy xam du bari waaye kaw kaw yi xam nañu xumbur xumbur xumbur mooy gerte kemb mooy gerte xottu xottu gerte bi mooy xumbur bi xottu gerte bi mooy xisur bi am na kemb bu nekk ci biir xott bi soo tojee xott bi kemb bi lubb la ci biir xumbur bi kemb bi am na diwlin ci biiram muy lubb lubb bi xoolal Baye Mamour su ko neexoon mu ne la xoolal Baye Mamour su ko neexoon mu ne sang la waaye ànd loolu yëpp jaay na ko jëndee ko taalibe Baye daf ko jaay jëndee ko taalibe Baye parce que xam ne loolu moo koy jariñ xam nga Mouhamed daf doon wax na bàyyi leen maa de doomu diw doomu diw dëgg mooy ra <laughs> <laughs> xar <laughs> kon kii niinal gaa yi Cheikh Ibrahim la Baye Niass com kon ñi feresu sikar parce que mooy bunt bi mënoo wax ci yàlla si sikar bunt bi la bunt bi loolu la kon bunt boobu nga xam mooy tudd yàlla tudd yàlla kenn mësta jël responsabilité am da nga gis koy xayal yàlla moom dañ ko war a xam yàlla dañ ko war a yëg yàlla dañ ko war a jaamu waaye jël sa responsabilité taxaw ne kaay ma yóbbu leen ci yàlla njëkk amut bàyyi moo jël responsable dem taxaw ne kaay leen ma wan leen nga xam ne bàyyi danaan gàmmu ba daan gàmmu danaan way danaan wayal maam xalifa maam xalifa di firi bés muy sikar di sikar di sikar bàyyi ngay sensé bàyyi dafa ñuuloon ma ngay weex ma ngay xonq bàyyi dafa xonkoon ma ngay weex tal dem na ba kenn si ma soxna maam alaaji ne ko naar bi la dem nga dayoo naar bi la dem nga dayoo dafal ndànk waaw da nga jeexal su nit ñi dem nga dayoo sa dem dayoo gi yemale ko Mauritanie yëgu na bàyyi lay waxat ñi ngi sikar bàyyi ñi tudd yàlla gaa yi fët fëti ku fët fëti ñu yóbbu ci maam kalifa waaye sëñ Daaru Ousmane Ndiaye ba mu ne fët fët fët fët gaa yi bëgg koo jël bàyyi teg ko tànk na baleen ko kii sama ndongo la sama taalibe la ah nee na mooy maamu sëriñ bi bàyyi moom laa wax moo jël responsable am ne kaay ma yóbbu leen ci yàlla kon tudd yàlla kii yóbbu nit ñi si yàlla bind ba fi ne wusuulu jami almasikina bi habliya taxaqaquhu man lam yukasib bi rabbiya wa jawbi fa yaafin fil maarifi lam turam lam kada xamoo lam lam turam wa qad qadura al aqtaab an darki zawiya waaye déglu leen Cheikh Ibrahima وصول الجميع ما سكن بقبلها تحققوا من لم يقدس الانبياء الله وصول الجميع ما سكن بقبلها تحققوا من لم يقدس الانبياء دقلوي وجوا في مياسر في المعارف لم وقد قصر dëgg la di dëgg la waay ah. dëgg la waay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

taxaqaqahu dëggal na ko man lam yu kasi bi yaa kurul fenal yàlla yonente yàlla moo dóor kese na bàyyi ku jàpp si buum gi yegg ci yàlla moro bàyyi 1929 1930 gàmmu na ba mu yàgg mu ne ndax du ma jóg wan leen nu yonente yàlla ma ma doon doxee mag ñi ne ko toogal téye ko mu ne am ngeen sens su ma jógoon danaa dox te su ma doxee danaa dem te du ma ñëw ti foofu ne taxawee ne ana kenn moo bëgg xam yàlla ku bëgg a yàlla ba sëriñ bay xool ko nangu yegg ci xedara yàlla taxaw xool xool nit rek xool mu xegg ci yàlla bés danay soq kër maam as mu ne soq soq bi ñuy soq sama kër yaay ku ci door kuur yegg ci yàlla baa ngay maye kado jigéen ñi ñëw ci kër baay di dukk kur yi mu nan ku ne rukk yegg ci yàlla keneen ñëw na rukk yegg ci yàlla gaa yi door dóor yi di yegg ci yàlla kii yegg la gaa yi ci yàlla ci rukk ci kur ci xool xegg ci yàlla wax nit waxal huwa awwal wal aaxir sat bat mënu ko wax mu ne waxal huwa mënu ko mu ne waxal hu waa ji ne hu xegg ci yàlla ku def loolu damay feresu yàlla dem parce que bàyyi tudd guddi la bàyyi ak xam yàlla guddi la waaye boo bëggee wax ci bàyyi da ngay da ngay da da ngay da ngay muudaake muudaake muuraake muuraake gan gi dafa ñëw ci kër gi gars yi na ko waaw yow loo bëgg ndax ñi indil la cere wala ñi indil la dege wala indil la sukar mu ne muuraake la bëgg xam nga muuraake am na cere am na dege am na sukar ñett yi ngay boole boo boolee ñett yi rek am muuraake kon boo bëggee wax ci baay dangay ngay muuraake mooy da ngay laal ci yàlla laal ci yonent laal ci Seex Tijaan soos ko ci baay seet allahu akbar allahu akbar allahu akbar xoolal yonent bi gaay wax ñëpp miin ko waaw ta te ñu ngi dóor ñëpp marche arrière la ñu dóor billahi la si la taggkat yonent bi ñëpp marche arrière marche arrière na boo ko dóoree si gannaaw marche arrière mooy Muhammad bun Abdullah bun Abdul Mutalib bun Hashim bun Abdu Manaaf bun Qusay bun Kilaab bun Murra bun Kaab bun Luay bun Xaalib bun Fiiri bun Malik bun Nidar bun Kinaata bun Xusemata bun Mudirkata bun Ilias bun Nizar bun Mahat bun Hadnan marche arrière moo tax marche arrière boo ko dóoree ci gannaaw ngay xool moo tax gars yi dañuy sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ngay dégg mu gàmm sallallahu alayhi wa sallam première la dóor xoolal première boo ko dóoree da ngay bàyyi mu tàndar bu tàndaree nga roofat beneen ay waay bàyyi waay yooyu bàyyi ñes seet allahu akbar oh allahu akbar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 waaye sëriñ bi dama la bañ a guddal billahi dama la bañ a guddal mais bi ak baay ah ak tagg yi mu tagg yonent bi mais mais sëriñ bi bañ la guddal xoolal baay première la dugal première première mooy faqad ixtaar rabbuna aadaman faqad sa dëgg-dëgg arfu taxqiq la baay indi ci grammaire yàlla tànn na faqad ixtaara rabbuna kum tànn mu ne aadaman bàyyi man su may commencé sax ki yàlla njëkk bind si suuf laay commencé bañ ko dénkee leer gi bàyyi ñi jël leer gi def ko ci ndiggal aadama aadama fu mu taxaw malaaka yi taxaw ci gannaawam aadama laaj yàlla nag waa man ñii taxaw sama gannaaw lu tax mu ne leer ki tax ma bind la bind leen moo nekk sa ndigg mu ne ko malaaka yi laa bëgg ñi ñëw sama kanam yàlla taxawal leer ba sa ndigg la yóbbu ko sa jëba fu aadama taxawee malaaka yi taxaw ci kanamam aadama na ko yàlla na ko waaw ah aadama na ko yàlla man malaaka yi li taxaw ñu taxaw sama kanam mooy leer ki tax ma bind la moo ne sa jëf yàlla aadama na ko yàlla da ni malaaka yi gisee leer gi la bëgg gisee leer gi yàlla récupéré leer gi ci ndigg la toxal ko ci jëba toxal ko ci jëba indi ko ci baaram yi ci téere siira yi da nga gis ñu naan leeru yonent bi Aboubacar Omar Osman xale yu fii bàyyi daf koo dàq bàyyi ne leeru yonent Yàlla moo nekk fii moo tax xëy ba yonent Yàlla Muhammad même boo bëggee ree bu la ree jàppee nga bëgg a ree xoolal baaraam bi ngir xëy ba yonent Yàlla Muhammad yonent Yàlla Yuusufa yàlla daf ko joxoon taar waaye joxu ko xëy ba moo tax jigéen ñi bañ ko gisee di fitnaal seen bopp nga xam ne Yuusufa ak Salixa guddi la gu xajul ci guddi ngir leer yu bëri yu fa nekk xam-xam yu bëri yu fa bàyyi jàngale jigéen ñi dañoo gis Yuusufa taar ba ko yàlla jox ba nga Salixa sàkkoo ñu ne ay jabaru buur bi kat mooy sàkk benn xaleelu buur bi buur jabaru buur bi am fulla defar diine tey diine diine la tey tey tey jii diine la mooy diine mooy lee reer boo xam ne ay miswi la lakk miswi yu nooy defar taabul yi indi fourchette yi ak paaka yi invité gars yi ba pare jël Youssoufa def ko si salle d'attente bi gars yi toog mu jox leen paaka yi fourchette yi gars yi war a dagg miswi yi mu xëcc Youssoufa di génn Youssoufa mi génn rek gars yi naan macha allah ah ah maasa ila basirul maasa ah maasa allah ina xasa ilaa malakun karim kii kay du kii kay du nit kii du nit kii malaaka la gaa yi jigéen ñi dagg seen loxo yi ñu ne jigéen ñi dagg gim doon dagg seen loxo yi moo tax ñu am lii ñun ay góor lañ lu suñu yoon lu si suñu yoon waaye ya eh, eh, eh. lu si suñu yoon ñun bañ ba suñu loxo di bi ñun lu si yoon ba suñu loxo di dagg jar naa laaj ji bàyyi ne bàyyi ñes ne jigéen ñi sariqa yeggi son Yuusufa di dagg seen loxo sun gisoon yonent yàlla man seen xol yi la ñu dagg waaye biñ gisee gaa yi gis nañ yonent bi jigéen yi sarixa yi mooy ñun ñii góor ñi jigéen leen góor ñi jigéen leen jigéen ñi jigéen leen dafa yonent yàlla man yonent bi yonent bu taxawee ñëpp ay jabaram lañ ñëpp jigéen la ñu nekk devant gars yi bi ñu gisee yonent bi bàyyi mu mënu leen xotti seen xol yi kay ma xottil leen ko saqahu summa saqahu summa aydan بعد هذين سقه بانتقال سقه ثم سقه ثم إلى بعد هذين سقه بانتقال سقه ثم سقه ثم إلى بعد هذين سقه بانتقال سقه ثم سقه من اللي يرجع بين آدم ba mu jógee ci aadama dem siisa adama awa bañ àndee am na ñaar fukki ëmb yoo xam ne ay séex ñaar fukk ak ba moo ñëw kenn dudd sa muy siisa yàlla ba mu jëlee leer gi ci aadama siisa la ko dénk bàyyi nag jàngal nañu ñaar fukki ëmb ak benn yi bàyyi jàngal nañu leer ga ca ndigg la lu tax leer ga sa jëba lu tax leer ga sa loxo yi lu tax ñetti maraaxil yi lu tax nee na fii mooy jaaruwaay yu nu tal mamat fële mooy sifaam fii mooy ismoom fii mooy xilaafam fii mooy nubbaam fii mooy wilaayam fii mooy xilaafam mooy asamaanam fii mooy suufam fii mooy jawwam fii mooy guddeem fii mooy bëccëgam fii mooy fii mooy fii mooy fii mooy fii alif fii laam fii mim fii mooy papa fii mooy yaay fii mooy doom fii mooy sa fii mooy sa fii mooy sa ba mu jógee ca sa siise la dem ba mu siise fu mu dem si idris summa idris قسم من نور النبي المدار بام جوغي سي sa nuux la jëm bam jógee ci nuux fu jëm ca Ibrahima la jëm topp ko ba leer gi jeex bàyyi noonu la ko toppee kon ma ne yonent yàlla Muhammad ñi koy tagg ñëpp ci maamam yii lañ koy tagg ma ne taggkat yi ngir yàlla maa leen ñaan dimbale leen ngir yàlla bu leen ñu waxati Muhammad bun Abdullah bun Abdul Mutalib bun Haasim gis nga loolu Abu Jahlin xawoon na ko Abu Jahlin dafa dund ak bàyyi bi gis ko dund ak yaay yonent bi gis ko dund ak maami yonent bi gis ko te ko tus wax la ñuy yonent bi bàyyi wax ne fa wa tëjëlli saati bahul wa aynuha fa mulkul aali minha kasal malakutu wa tëjëlli kasal malakutu déglul bàyyi ne fa huwa tëjëlli saati yonent yàlla man mooy tëjëlli yaati jëmmi yàlla ja waykat yi ñi yaakaar ñoo di tak yonent bi fii ci Sénégal dana baga bi ko yàlla bëgg amal dafa coppati sa leeram nga amal ko yàlla du doxalee noonu yow mi takki jabar indi ko ci kër gi ndax ba nga bëggee jur doom da ngaa jël benn loxo may ko doom ji judd am benn loxo da ngaa jël benn tànk may ko doom ji judd am benn tànk da nga may benn bët mu judd am benn bët benn nopp mu judd am benn nopp ba liir bi juddoo am na ñaari bët comme yow am ñaari nopp comme yow am ñaari loxo comme yow am ñaari tànk comme yow organes yi nga am yëpp liir bi am na ko manqué wu dara bàyyi ne lu yàlla amoon jox la ko yonent bi te yàlla manqué wu dara fu yàlla ak yàlla ga yegg yonent ak yonent gi yegg na fa yàlla may na ko jëmm ja may ko mela ya may ko tur may ko jëf jë may ko jeexintal ya bàyyi man ñëpp ci yonent yàlla mamat bàyyi ne yonent boobu suma maslaahut xat ahbabtuhu hatta araaniya kuntuhu wa rabbiya lam yaxluq makana wala waxta man dama bëgg yonent bi ban yonent yàlla man mi gars yi wax ne maa ngi mbindaanam di ko liggéeyal man la ñuy liggéeyal yéen ñiy liggéeyal yonent yàlla man est ce que xàmme ngeen yonent ku xàmme yonent bi yonent ngi nii ñëw na man maa yonent yàlla man man ngeen di liggéeyal est ce que xàmme ngeen ma xat ahbabtuhu hatta araaniya kuntu bëgg naa yonent bi ba gis na ma yonent yàlla man fekk booba wa rabbi lam yaxluq makaanan wala waxta booba temps amagul espace amagul yàlla bindagul waxtu yàlla bindagul barab kon ma ne yàlla ku ko bëgg ñëwal ci baay moo ci mën ñëpp yonent yàlla man ku ko bëgg ñëwal ci baay moo ci mën ñëpp te baay daf koy wane yonent yàlla man dañ koy gis de billahi lazi laa ilaha illa hu baay ñees day wane yonent bi te baay nees nee na képp ku gisul yonent bi jigéen nga même booy sëriñ mbooloo wër na jigéen nga rubama shahadal amina rijalun bu leen waaye rubama shahadal aminu de ñu bëri dañoo naan rubama shahadal aminu déedéet ربما شهد الامين رجال إن اندي مفعول مي دور اندي فاين ربما شهد الامين رجال كل ان بدون ما الاشكال دقلون باين ربما اكبر شهد بوم سيدي بوم غيسي الامين كي يلاولو مو يونت يالا مت نيغو غيس مون رجال اي غور غور يي غيس يونت يالا kulla aanin jamono bu ne lañ koy gis nekkul gis ko tey doo ko gis suba wala gis ko si waxtu wi doo gis waxtu bi wala gis ko si weer yi doo ko gis si weer yi wala gis ko si at bi doo ko gis si at be yonenteel men góor yi buñ ko gisee du leen faddu rubbama shahada al amina rijalun kulla aanin mboolem jamono yi min duni ma ashkaal gis ko xam ne du lënt ñu ne bàyyi am na ñu taxaw ci tuuti ne yonent bi duñ ko gis mu ne wal Mustafa islam tanaalu waslahu la tanzibu لو نلتمه لما جهدتم نيله لكن قبنتم يا بني القسلاني من والمصطفى اسلام تنالوا واصلوا لا تنسبوا اهلي للبوتان من يونتي بي بغين كوم من تيس بولن واخ نانيو كو غيس واخون من لول داي وير سين بوب دنجي خامي ني غوسولين كو بغين غوسول يونتي بي ودينا داي غيس يونتي الله محمد كون يونتي باي داكوي واني نيمي وانا يالا داما كوي فرسو جال باسكو يونتي بي غودي شيخ تيجاني كيف كنك تجولك نجلي رافا يعني دمال جلي طريقة تبوي جلي طريقة بينول كرباي نجحلك بس كده لا يجح صلاة الفاتحة بيدندو ده لا يجح استغفار بيدندو ده لا يجح لا لا لا بيدندو طريقة بجرال باي نار فكرك بن من النصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجاني طريقة محض الفضل والرضواني أسس بسنة والفرقاني ولازم ولازم سي طريقي بسا ينالورف بتحقيقي فلت في أخذ طريق تربه إلى إذا كنا دواما تسله مكملا سروده المقررة مكابرا آداب المعتبرة مؤثما لاهل جميعا لا سيما القاس كن متيعا إذا صرت في الدكار ودي فلازم الأدب قدر الحد تأدب في الظاهر والباطن به يرقى المرء للمواتن وتحضرا سيقك المربي كساك سيقو بدون الريب ولازم الخضور والسكون كساك قلوة تعين عينا ودم ربي قبل الناس كامل عرفان إماما صالحا ملك نفسك فلا تدبر وكن كميت دواما تخبر ولا تقالف ولا بان فسا درهي فكن دواما ستزا فقط أولي شيخ أقوم وأليق من المريد عندما حقل مدام ولا مباي فتير آه من أقوى سري بم يقتل تير بم كوي طالب دفور بوكر Baay Ñas na ne بير كو gu إبراهيم ci Ibrahima Ñas Kaolack jëm ci képp kuy nit kon jël leen tariqa tijaan boo jël tariqa tijaan xam nga li ma gën a naqari ci àdduna bi mooy ñeseen yeeg tijaan yi taaliba yi ay ay tijaan ay tijaan leen ay tijaan nee na nga yeesala ko tariqa bi waaw ku yeesaloo guut ñëwal yeeslu ku jëlee guut ñëwal jël ku jël ta tarbiya ñëwal jël tarbiya waaw yeesala ko ñi am waaw aha tariqa kenn waru ko ñàkk tariqa tijaan turu Cheikh Tijaan amu ci turu baayam amu ci turu yaayam amu ci turu maamam amu ci Baye Niass nee na su ngeen ma laajoon ban yonent la la fi yonent bàyyi boo xam ne ku ci teg sa tànk teg nga sa tànk fu yonent bi tegoon tànkam damaan la kaay nga si tariqa tijaan wa in qulta hal zal wirdu nahju muhammadin aqulu naam wirdi li nayli safaa'i famal wirdu أقول نهودي لنيل السفاي نيسان فما الورد إلا ذكر الله وحده تصلي على المهدى وخير ورائي دق نخف ما فيه ذكر الشيخ أو ذكر غيره فوقي لما يراد نعم نيسان

baalu say bakkaar ne gis say copain yi yor kurus rek nga jël kurus déedéet du demee noonu iblis loolu moo ko xalagoon iblis ak aadama dañ jugee aljana aadama ne yow yàlla dama bëgg nga jox ma baat yoo xam ne su la si jégaloo nga baal nga baal ma fa talaqa aadamu min rabbihi kalimatin fa taaba alayhi aadama dafa nangoo am kilifa aadama dafa nangoo am sëriñ na yàlla yaay sama sëriñ yàlla jox ko ay baat ne ko sikar ko yàlla jégal ko iblis na man du am sëriñ du am kilifa baat yi comme neex jël say baat wax iblis wax ay baatam yàlla jégalu ko bu li gis say morom yor kurus di jàng salaatul faatiha nga jàng salaatul faatiha te kenn joxuloo ko doo jariñu ma ne mbedd mi boo gisee ñuy bale ñi jël leen te jëluñ la ngay bale bu weer dee ñen jël ñuy bale dana lay fay te yow mii bale te kenn jël la doo fayee kon dem leen jëli tarixa tijaan ci ko am isnu mu jox leen tarixa tijaan ngeen sikar ko laa ngeen def ci lim salaatul ci lim laa ci lim mane ne saahir bi kay ku am audience ak buur di nga sangu boo paree dina am protocole doo def direct ci président sangu yi mooy istixfaar yi protocole yàlla ak jàmm ñi mooy yonent yàlla mën nga julli ci moom ma ne eh ku ngeen dégg ñiy jàng salaatu faate muy mer neegu yéeféer nga xam ngeen salaatu faate mooy lan allahuma yow yàlla salli jullil kan ala sayyidina suñ sang bi kan mooy suñ sang bi ndax sa baay ngay wax ndax sa maam ngay wax ndax benn yonentu ngay wax ndax benn wali yu ngay wax ndax sa sëriñ nga wax nga ne muhammadin muhammad moy suñ sang kan moy yoonent bi nga ne al li maa uxliqa mu ubbi li tëjoon kan moy yoonent bi wal xaatimi lima sabaqa moo tëj li ko jiitoon kan moy yoonent bi nadir haqq bil haqq xaq moo dimbale dëgg ci deug moo dimbale yàlla ci yàllaam gi kan moy yoonent bi wal hadi ila siratil mustaqim moy orienter nit ñi teg leen ci yoon bu baax bi yàlla julli gi bu mu yem ci yoonent bi wa ala alihi na royat ñëw ci njabot yoonent yàlla met yàlla julli gi ku ko julli ku febul la ku lotu la كتكو درلا كمنو درلا كقمو درلا كتكو درلا كأمو لارا ويجل جلي حق قدري كم قد جون تعلمت ومقداري كم درجة أم جاء العظيم جماعة جي لي ورنا نخري أبجلي كم نخري يا ولنغا يفرنغا بو بارينغا تودي الله موي بوربي كون جل لي ناو دكوي جل مك دكوي جل غور دكوي جل جيجين دكوي جل bu ngeen a tariqa tijaan bu leen kenn wax seen bopp yu ndaw yi dem leen moom la fi bay indi Ibou Diouf ne tarbiyu leen xam yàlla ilimaani faydu bi ñëw faydu bi ñëw na ndeysaan tarbiyu leen xam yàlla ilimaani faydu mm. faydu bi ñëw na ndaysan ma ngi xol heure bi mini mi ngi jot ma ngi am xeres ci serigne bi te dafa wara dem Thiès kon tarbi yu len xam yàlla gars tem bi baylon mais duma wax ci bay parce que heure bi dem na serigne bi dafa wara dem waye bay du ken bay mo waxoon ne wajultu fil khaybi bay ne tay la neex tay ji la neex tay la neex waye man bay wajultu fil khaybi lama ajil li zati abdan siwaay dama dugg ci bir khaybu yàlla gi gisuma benn jaam bu am man rek ma am tey jii la neex ngeen di buuxante ak man waaye ba may am te kenn amut may xool ca pays bi gisuma kenn booba fu ngeen newoon wa jultu fil xay bi lam ajil lisaati abdan siwaay wa jultu fi xaybil xay bi ma wër ci biir xay bu xay bi fa zahattu jalalan fi jamali maa ngi gis biir jamaal buy dugg si biir jalaal fa idan bi hadrati xay bi xay bi wa tuzammini ya ahmadou tidiane kena xamu leen ne seexal tidiane na wax man la mahaqat saatu zayqi zaati wa awsaafun lahu awsaafi Fukul li kon ah damay teunk ci bàyyi la bëggoon dugg mais duma ci si dugg parce que gis na ni minu jot ñi ngi sante yalla ñi ngi ndokkel mbooloo mi ñi jëlagul tariqa tijaan nañ ngi jël ñi jël tariqa tijaan nañ dem tarbee ji ñi tarbee nañ dem doxi yalla nañ dem doxi seyru bañes neena na ku yalla muri sa beuti xol ba nga sopp la fa yalla am nga soxla bu dul jeex yeneen yi noppul nañ moy bahima yi ak ñetti ñetti yi ak yeneen yi waye ku yalla muri sa beuti xol ba nga sopp la fa yalla am nga soxla bu jeex ku dem ba fëgg sa dënn ma yalla doxal yàlla boo doxul yàlla da nga am problème alxuraan nee na wa man yàqul minhum inni ilaahu min duuni fasaale gën na si jahannam képp ku wax ne yàlla la te sa yàlla bi mënoo ko lay safay mooy safara te tey nit ñi luñ gën a mooy ko xam sa bopp xam sa borom boo xamee sa bopp sa deret ji lu koy tëbb sa yàq yi lu koy tëbb sa yuq bi lu koy tëbb sa siddi di lu koy tëbb sa pii sa baaraam yi baaraam bu nekk ban pii la ci pi yàlla baaraam bu nekk fan lay connecté ci yàlla toppal baaraam beneen baaraamu loxo bi tànk bi tànk bi kon nit ñi buñ nax seen bopp bàññees ñëwul pour ndax kenn jër jërëjëf Samba ñëwul pour ndax kenn bàññees dafa ñëw pour goreel jàmm bàññees ne sama taalibe bi su ma paree si mën a dem fu ko neex bu leen nang kenn ku leen tënk ñi tarbiya guuj nen tarbiya ñi tarbiya nañ dem doxi yàlla bàññees nee na taalibe na un njariñ su amee njariñ na un ndolal te ndolal li amut fu mu am taalibe na njariñ su amee njariñ na un ndolal te ndolal li amut fu mu yem bàyyi naxut kenn ku dem ba sa kiiraay dañ ba mu ne dara néew fi lu yàlla xegg nga fi mag ñi xeggoon waaye loolu limi kawe kawe doyut na ngeen kawe li tay yàlla amu dayo seyru amu dayo li wolof la ko wax bindi ne ama seyru fa wa fi maarif al ma'arif wa la yenti abadan li anna la la nihayat al abad ndax yéen da ngeen yaakaar ne bàyyi baytam yi da ko bind rek bàyyi ko fi fa sirrun sara li sirri bi sirri wax dawu loolu ma ne fa sirrun sirru sara rañana li sirri ñeel sirr bi sirri si sirru wax mom ken kenn may lan fa sirrun sara li sirri bi sirri li sirri wax kon sirru moo rañaan si sirru sirru boobu rañaan si sirru sirru boobu rañaan si sirru kon bul dégg du sirru gis ma xalba nga ne sirru gis ma xalba bi am na sirru am na ruwa am na gis mu am na xalba ruu bi am na sirru am na gis am na xalba am na gis bi am na sirru am na ruu am na gis mu am na xalba xalba bi am na sirru am na ruu am na gis mu am na xalba kon buñ ka dañ gàtte nun buñ kawel suñ buñ gàtte suñuy tey nañ kawel suñuy tey nañ kawel suñuy tey nañ yëkkatiku nañ nekk ay ndaw yoo xamante ni ñun la bàyyi yaakaar bàyyi waxoon naa sababuna naa sabaabu naa xuutu naa ndaw yi ñooy sunu effort ndaw yi ñooy suñu ngànnaay saaxiir bi sax boo demoon tey am 30 ans bëgg dugg ci armée bi dañuy bañ dañuy wax ne da nga aase kenn mënu la defar pour jëriñoo la ëllëg kon ki bëgg nekk président ci ndawam la koy préparé ki bëgg nekk ministre ci ndawam la koy ku bëgg dugg ci armée bi ci ndawam la koy préparé ndaw yi bu leen fooyee seen ndaw bu leen yàq seen ndaw gi bàyyi leen li nit ñi gëm naan boo nekkee ndaw da ngay dox sa ndaw soo nekkee mag ku la wax da ngay nekk mag ku la wax da ngay nekk mag ku la wax ne bala ngaa nekk mag doo fi bàyyi gàcce goo xam ne say doom buñ màggee am gàcce buñ fooyee suñ ndaw gi nañ jël suñ ndaw gi jox ko yàlla buñ ñu nax xale yi jigéen ñi bu ngeen muuru ñaan leen ay direct décourage naa mel ni màgget xale bu ndaw juddoo ko ndax nga ne ndax damay sol lu bon ku bon xool ma ànd ak man ci lu bon ñi dee dugg fu bon mooy safara sol leen lu baax ku baax xool leen ànd ak yéen ci baax ci daayira yi ci wasifa yi ci musaakara yi ci xadara yi ci lépp ngeen ànd dugg ci baax dund ci baax dee ci baax dekk ci baax dugg aljana xale yi góor yi bu leen yàq seen ndaw yi yéen a war a nekk imaam yi yéen a war a conférence yéen a war a gàmm war a jàngale internat yi bu leen yàq seen ndaw yi ëllëg yéen a war a nekk président yu jub yéen ñuy jàng français wala yow réew mi doxal ko teg ko ci yoon ndax bu ngeen yàqee seen ndaw yi ngeen bàyyi fi wooy woo xam ne ëllëg bu ngeen nekkee président ñi leen koy xasee nekk leen ndaw yoo xamante ni da ngeen di jub ñiy jàng français ñi jàng anglais ñi jàng arab na ñëpp jub bu yàq su ndaw yi nañ jël su ndox yi jox ko bàyyi nekk ndaw ya bàyyi waxoon ne yu haadiru ni fidyaani sidqin qad axlasu ilallahi qasdan lan namuta walan naxyaa te naasa kaasa sikri asaabu sayqina wa sikru rasulillah fi arfil maaya fa tawran li wuraadin wa tawran li saadirin awinati li hayi ahsin bi sahya nahimu bi tawran wa tawran bi sirri wa sirri rasulillah tayan ayataya fataha rasulullahi mursala وعيني قد رأى بيخسة بعي الذي أهوى من الدهر والدنيا وإن أرى عينه تشبه عينه جمالا فألتفى لأحمد بن سنيا عليه الصلاة الحق ما قال مخرب أتذكرت وذكرى تكدر لي المحيا آه، تكدرت الدنيا ميقف تكدرت الدنيا وسلسلة الأرض وخيرك لبر مصطفى عدم محدو هذا المصطفى باب الإله بفضلي يدلنا بستا به يرفع القرد هو الب... سرين بي كون على كل نيجي سانتيال ناوي yi ñun ñëpp ay ndaw lañ bu ñu fooyee su ndaw bu ñu kenn nax bu ñu kenn nax baa nee na ku yàlla jox yonent bi gën ci yonent yi bi gën ci téere yi ji gën ci diine ji waroo dex sa bopp xale comme jot nax kon bu ñu kenn nax bu ñu kenn nax ñu ngi sant yàlla ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi gërëm nag suñu sëriñ Maolana Sang Barhaamu Njaay moo ñu yar moo ñu tett moo ñu ñemeloo moo ñu dëgërloo tey fu ne ci àddina ñu mën a fa tax wax kon grâce à Mawlaaya Mawlaana Sang Barham sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay dokkaat Thierno ñu ngi lay nuyuwaat ñu ngi lay ndokkaat Thiam ñu ngi lay nuyuwaat ñu ngi lay ndokkeel Seyd Fall ñu ngi lay nuyuwaat ñu leen ndokkeel Seyd Moustapha ñu ngi lay nuyuwaat ñu leen ndokkeel Seyd Sersan ñu ngi lay nuyuwaat ñu leen ndokkeel Daam bi tey aywa waa Fayda Tidiane ñoom Mariama sama waa jee nga xam ne daf ma bëgg ba tuddee ma seenam bi Touba TV keroog ba ma gisee scène bi. mu ne ma Touba TV ma ne ko jaam bi nga xam ne tekkiwu dara xamu dara du dara waaye rek bëgg naa far ci baay jeex ci baay ba jël turam tuddee ko tuubaay tuubaay mooy man sama lépp baay la ku ma jël gis lawal naa la ci baay jeexal naa la ci baay ñàkkal naa la ci baay fépp ñàkkal naa ko ci baay ñëpp ñàkkal naa ci baay képp ñàkkal naa la ci baay tuubaay lépp baay la ku fi ne ku dut baay mu fi newut lu fi ne lu dut baay mu fi newut sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay wàcce sama marxawul in nuridu ila al islam maxtataatu